waaw euh, ñoo ngi siyaar bu wér di gërëm di sant di nuyu monsieur le ministre di leen nuyu yéen journaliste yi di nuyu aussi Médina yëpp quoi euh, lii li muy wane mooy que ni man Médina laa dëkk Médina laa dëkk Médina laa juddoo Médina laa yaroo gisoon nañ Médina bu démb gis nañ Médina bu tey mais gis nañu Médina dafa dafa dégradé wu dafa dégradé te lii nii symbole la rek mais lii lijjanti jafe-jafe Médina war na ëpp lii parce que dañoo bëgg euh, vraiment Médina delloo ko ca fa mu nekkoon ba pare wëlbatiku yóbbu ko ci dimension boo xamante ni dafay tolloog les villes internationales parce que Médina boo ne Dakar boo ne Sénégal ne dakaar boo ne dakaar ne Médina te Médina centre culturel la nga xamante ni boo xoolee toutes les grandes stars af sénégalais Médina lañ jógee Médina aussi euh, laboratoire de artisanat la tu Medina création Philippe la euh, hum, bien-être social Philippe la Nous baax mu Youssou Ndour way Medina. donc euh, Medina Teddy, nous waroon na dépasser Teddy nous jii ñun dañoo nous a ñëw pas ñuy def set setal Medina, mais festival nous ñu waroon def Nous waaw la Medina waroon def Médina quoi waaw Medina vraiment bëgg nañ ko jël en charge quoi vraiment delloo ko fi nga xamante ni foofu la nekkoon quoi. waaw waaw reboisement bi moom c'est intéressant parce que Medina amatul espace vert amatul euh, jardin amatul euh, espace boo xamante ni nit ñi mën nañ fa divertir wala nit ñi mën nañ fa feexlu feexal seen xol loolu yëpp amul Medina donc euh, te nit ñett moo ko yor liggéey. noppalu ak fu mu féexalee xolop waaw nit fu mu dëkk rek ñett yooyu la fa as la fa soxla fu mu liggéeyee fu mu dëkk ak fu mu féexalee xolam te Médina amatuñu bërëb yu ñu féexalee sunu xol donc te garab dafa bokk ci li nga xamante ni dafay contribuer ci euh, wér-gu-yaramu doomu aadama ak développement wu doomu aadama te waaw parce que booy wax reboisement yaa ngi wax environnemental te l' environnement mooy nature bi mooy suñu premier corps physique environnement bi bu fekkee ni euh, c' pas bien conservé c' pas bien kenn saytuwu ko comme bu baax dafay répercuter ci sunu ci sunu wergu yaram té su boba tamit dafay répercuter sur la sur la santé physique ak santé mentale même santé spirituelle bu bu nit ñi citoyens yi quoi motax reboisement bi dafa war a nekk loo xamante lu indispensable lay nekk quoi waaw dañ ko wara def quoi carrément jaajëf jaajëf jaajëf ci Koss Kanam jërëjëf euh, Vous savez que chaque premier samedi du mois cette journée est instituée seetal suñu réew j'ai salué cette mobilisation populaire que j'ai trouvée ici, qui est une prise de conscience individuelle et collective organisée par euh, M. le ministre euh, M. Louis, pour aujourd'hui, effectivement, que chacun dans son quartier puisse en faire autant. Nous, autorités de l'État, délégués du chef de l'État, une institution de par le chef de l'État, nous ne pouvons pas être à Nous sommes obligés de condamner les activités, de les main forte aux autorités, effectivement, initiateurs, et pour ensuite rendre visible comme on le dit, et attrayant notre cadre de vie. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. À cet effet, je salue vraiment cet effort qui a été organisé par euh, le ministre Oussenobi pour que dans son quartier déjà, que chacun se sent à l'aise. Le cadre de vie, aujourd'hui, je crois que tout le monde sait qu'il est en détérioré par nous-mêmes. Le tout est du fait de l'homme. C'est l'homme qui salue, c'est l'homme qui Et je crois que si donc l'homme vient pour améliorer son cadre de vie, on peut en trouver vraiment une euh, solution heureuse. Ce que je déplore, c'est que depuis quand même euh, ce matin, j'ai vu que dans beaucoup d'égouts on a mis des, pierres, on a mis des pneus, on a mis des barres de fer, ce qui ne constitue pas, en tout cas, ce que, ce que nous honore pas. Et ce sont des actes, en tout cas criminels que nous ne saurait accepter parce que ça détériore le cadre, cadre de vie. Et qu'aujourd'hui, malgré cette détérioration, avec cette pluie qui est annoncée, ça, sera, va créer des risques de et même euh, à la longue qui vont créer effectivement des, problèmes de, santé publique. Parce que nous n'oublions pas que le périphérique est encore là. Nous sortons de la Covid. Donc tout ce que nous devons faire pour améliorer le cadre de vie, nous devons le faire. Mais que les gens savent à de très pratiques, en tout cas c'est condamnable. C'est l'occasion pour nous en tout cas de lancer un appel à tout un chacun pour que chacun en fasse du sien, pour que cet esprit tant citoyen, tant en tout cas brandi, puisse être en tout cas fait et accepté. Et c'est l'occasion pour moi de demander aux jeunes, nous sommes euh, la fête des vacances, que les, élèves, les étudiants, les ASC puissent en tout cas dans une dynamique consensuelle travailler autour des populations, dans les quartiers, des côtés des quartiers, pour qu'ensemble, nous réussissions le pari de l'amélioration de notre cadre de vie, qui est aujourd'hui une préoccupation pour les plus autorités, particulièrement à son Excellence, M. le Président de la République. Donc, en tout cas, je félicite euh, vraiment M. le ministre, et toute son équipe pour cette action citoyenne que nous pensons en tout cas être une action qui va être comprise par les populations, qui ne sera pas seulement un problème de tape à l'œil, qui ne sera pas seulement un aspect folklorique, mais que ce soit un aspect citoyen pour que nul, en tout cas, n'ignore. Donc c'est pour cela en tout cas que je suis là. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu et je souhaite que cette mobilisation puisse continuer parce que je vous ai aussi à l'œil. Pas parce qu'il est là que nous sommes là, vous êtes là et on, dit que voilà c'est fini. Chaque jour je vous passerai voir les quartiers. En tout cas même qu'il va, je vais le taquiner parce qu'il va instituer en tout cas euh, un trophée pour le meilleur citoyen qui va améliorer son quartier. Merci beaucoup.

di saluer donc euh, lolu parce que biñ fi togué té ñëw fi parce que président mako diggal té te mu nekk tey loo xam te dañ ko war def c'est devenu institutionnel bi lolu nak amna na ko xam te doomu gox bi la euh muy ministre Ousseynou bi mu organiser ko fi ci rue 27 de angle 28 26 angle 28 motax ma ñëw gis mu ànd ak ay ndaw wax deug yalla mobilisation bi rafet na té ku nek nak war na gëna tax taxaw nga def ko sa mbiru bok li ñuy def bu amé ñu war gëna farlu moy ndaw ñi ndaw ñi ñoo ñoo dëkk ci koñ bi ndaw ñi ñoo fi nekk ndaw ñi bu fekkente ne koñ bi doxul bu ëllëgee ñoom ñoo si gën a lott ñoo si gën a sonn ma ñaan yàlla donc loolu côté boobu ci njekk na ndaw ñi fagaru liggéey liggéey boo xam te ne maanaam de nekk liggéey bu patriotique bañ a nekk lu ñuy forcer nit wala folklore wala tap àll yi ñëw nañu caméra ñëw nañ ko nekk ñëw caméra yi dem ko nekk dem ñibbi taxawul donc lii moo tax ñu taxaw fi tey mais li ñu gis nag fii commencé na euh, xaw a doy waar tey vraiment j'ai même perdu mes mots li ñu gis mooy ay égo dañ koy dañ ci def ay xeer def ci ay pneu def ci ay ay barre de fer loo xamante ni maanaam ndox mi du dem bu ma ndox sa même neneen mënul dem te bu tawee inondation am muy lor nit ñi loolu rafetul jekkul te dara jaru ko fi ku nekk war nga bàyyi xel ci loolu li ñuy bëgg bu fekkente ne ñun li ñu bëggal bëggaluñu ko suñu bopp du dem action yooyu action criminelle la parce que mën na andi problème accident mën na andi problème inondation mën na andi tey ay problème tey euh, tey maladie périphéricale wala même problème santé publique santé lu mel ni ay choléra ak yooyu

waaye du club de football bu ñu éliminé nga dem jël ay xeer di sànni loolu moom sax dama ko may kenn mais loolu nekkul li tax ñu waxee ay ASC donc occasion la pour ci dynamique consensuelle ñu impliqué wu ñun ñëpp liggéey liggéey bu mucc ayib ba nga xamante ne bi tey li président wax ku nekk di ci gis sa bopp parce que bu baaxee ñun la baaxal bu ba ñun la bonal donc loolu bu ñu ko defee dañ koy rafetlu maa ngi sax tooñ monsieur le ministre man xam naa ne dina teg benn trophée pour ku gën a setle si ko ñi nga xamante ne jaar na fa jaar na fi tey dinañ xool ndax bu ndax ndax mois bi di ñëw fii dina melaat nii bu melaatee nii ni ko fekkee tey ñu xam ne ñi fi nekk taxawuñ ci bu dem beneen koñ bu li jeexee mu évaluer seet ku mu jox ndàmpaay boobu loolu monsieur le ministre li ma ma war a saar wax man maa may boobu donc ci biir loolu maa ngi koy féliciter di féliciter vraiment jeune Médina ci taxawaay bi ñu am depuis ce matin li nga xamante ne ñu ngi koy def di ñaan li ñuy def bu ñu ko defee na nekk luy sax dàq da nga xamante ne sa bopp asalaamaaleykum wa rahmatullah